mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu fii ci Tektal TV ànd ko ak sëñ Ablaye Diop xaas fas yéene cee dalal sëñ Mara ñas sëñ Mara maa ngi lay nuyu. sëñ Ablaye maa ngi lay fay nuyoo di nuyu waa Tektal TV. sëñ maara dañoo daje fii ci Daaru Salaam. di waral di laaj luy waral tànk yi avant ñuy dugg ci liggéey waaw tànk yi nag mooy ñëw ci bisub maam Cheikh Anta bi euh, bisub mbégte bi bis bi nga xam ne sëriñ bi ci la fekkeek màggal bis bi kon bisub mbégte lañu ñëw ko ci Daaru Salaam. ba noppi boroom xaas dalal ñu di di di di nit ku baax te yiw waa ah, di mara ku la gis xam la xam ci li nga ne ku dem parcelle ca jumaa sëñ Cheikh Saliou fekk la fa n'est-ce pas waaw ah nga xat loolu tey nag maa maay dugg ak yow waaw sëñ Mara buñ ne cosaan waaw ci wàllum paj mm-hmm. lu ko sabab waaw cosaan nag dafa yaatu mm-hmm. ndax maam ña mm-hmm. liñ fi bàyyi woon lépp cosaan la cosaan nag boo ko xasee wax rek mën ngaa dugg ci sunguf ak ren sunguf waaw ci nuñ ko xamee waaw ci cosaan xam nga cosaan nag lu yàgg la mag ñi danga daan jekki-jekki na sama bopp day metti masalan uh-huh. ñu ne la demal fee ca kàdd ga nga xasal ma ci xas ma indil ma ñu xooy ci ab diir uh-huh. def ca seeni sunguf cof uh-huh. na xaaral ma faj ko fajum cosaan lu yàgg la ndax ca seeni maam dañ ko gisee du luñ jàng ci ordonnance du luñ leen fi bàyyil téere boo xam ne dañ ciy jaar xam naa sax yow kilifa yu mel ni yéen war ngeen cee def ay livre bind ay téere yoo xam ne day nekk fajum cosaan ak Serigne Ablaye Diop xaas pour ndaw ñi nga xam ne dugg nañ ci liggéey bi bu ñëwee am fu ñu jàpp. léegi émission bi numéro un la yàqu ñu ko tourné. Uh-huh. day am deux am trois am quatre. dégg nga Cheikh bii maa ko moom sama émission bopp la. waaw leeral nga ñu foofu tuuti sëñ Mara ci wàllu cosaan. Mm-hmm. waaye nga yaakaar ni. Mm-hmm. est-ce que du wàcc gi ñu wàcc cosaan bëri na lu xew léegi looloo ko waral. waaw loolu nag moo indi problème bi sëñ bi. Mm-hmm. gis nga cosaan. yi fi maam ñi bàyyi woon buñ ci jaaroon duñ am problème mais cosaan nag léegi boo ko déggee ñu bëree bari dañ koy yóbbu feneen te cosaan nag mooy dëgg géwél yii fi toog léegi li ñu waay lépp cosaan la mooy waral kuñ laal sa maam nga yëngu ndax deret boo ko toppee lépp cosaan lay doon waaye faju faj ci cosaan nag moom mm-hmm. euh, léegi bëri na ñu naan fajum cosaan waaye fajuñu sax fajum cosaan xam nga faj man la ñu faj mm-hmm. fajum wàlli yaane mm-hmm. dañuy commandé garab Europe ak Europe <laughs> ñëw daan ne la garab gi ci réew mi la jóge fekk mën naa jóge sax Inde def say étiquette daan ne fajum cosaan laay faj fekk da war a wax fajum jéggim réew laay faj fajum cosaan nag man boo gisee ma insiste na la da war a bind liifur kilifa yi ci dëkk bi ak nit ñi ci dëkk bi ñëw jëndee liifur bi lu cher pour lan alors que nit yi xam lan mooy seen cosaan tey bu sama bopp doon metti am naa liifurub ab Ablaye Diop xaas damay ñëw daal ne paas bopp buy metti laay xool ci fajum cosaan waaw xam nga boo gisee may développé ci loolu damay dugg ci cosaan rek fi mu ne li ma bëgg ñu gën cee développé mooy mooy mooy mooy cosaan mhm. mën nañ koy wax rek waaye ndaw ñi xamuñu ko yéen nag da ngeen ñu cee war a dimbale comme que yéen ay référence dëkk bi ñu ngi ci biir émission bi uh-huh. xam nga ci biir cosaan mhm. bu ñu ko waxee da ngaa wax wax bu am solo surtout mooy ñu ngi koy wax waaye dawalatuñ ko defatuñ ko que da ngay xool mhm. mag ñi mm-hmm. da nga daan dugg seen kër ñu ne nga gis fa njàq mm-hmm. ñu ne ñetti njàq mm-hmm. bii ñu def ca sémmiñ da daan am dëgg la bii ñu def ca lañ cay def bii ñu def ca lañ cay def wa ilaa ñu jël kook waaye léegi xam nga kon pour indiwaat cosaan sama xalaat dina jafe ndax sunu soo yi la ñuy sangoo léegi mm. xanaa xamoo ne li tax nga wax loolu daan na cosaan daan na ñetti njaq daan na daan na kook daal di tudd ndaa xanaa xamoo ndaa ak njaq bokkuñu te fi mu ne bëri waa na mën ngaa ñëw ci ab Ablaye Diop xaas mu bindal la bayre na la demal nga sangoo ko loolu xam nga day dugg ci cosaan bu dee sungu fa nga dem jël bayre ba nga sangoo ko ci bool di nga am bayre waaye day ànd ak coow nga jël bayre bi sangoo ko ci këwsu mën ngaa am bayre mais sa bayre bi du ànd ak xéewal waaye bayre du yàgg bayre nag ci leket lañ koy sangoo xam nga loolu loolu da ngeen ko war di jàngale fi mu na bayre bayre ci leket lañ koy sangoo te it dafa am heure cosaan cosaan dafa yaatu bayre dafa am heure bayre képp koo gis mu koy sangoo naaj wu tàng jër la ko war a sangoo bu ko laalu heure boobu rek baaxul kon loolu ba tey cosaan dafa jàngale diggante boobu cosaan it am na ci soccu mhm. cosaan am na mhm. ci yére xam nga fajum cosaan am na nit ñoo xam ne seen famille boo ñëwee ñu ne diw de bopp buy mett da koy sonal mhm. dañ naan la bàyyil couleur sàngam ñooñu aada lañ coob topp ak cosaan bu fekkee da ngaa ñëw ne man de man de damay damay seetaan sëñ Ablaye Diop xaas mais tey fajum cosaan dama am tànk yu metti mm. masalan nga xam ne sëñ Ablaye fooram mooy tànk yu metti mu bëgg ak dugg ak yow ci cosaan mën na laa suur mm. am na suuraay yoo xam ne boo ko suuroo say tànk mm. nga xam ne da ngay jël ànd bi teg ci say tànk suuraay bi di la suur ci fajum cosaan nag laay wax yàlla mën naa dogal mu wàcce sa tooke say tànk oyof xëj na boo waxee ku mel ni mm-hmm. Cheikh. Mm-hmm. ci wàllu suur dana ko jaaxal. Mm-hmm. ndax Cheikh tey tànk bu def nii rek. aar ba di ko jaar dina lu mën a nekkee. waaye boo ko bëggee dégg mooy. mu ngi mel ni graisse boo def ci bool. teg ko ci xal day daw force. léegi nag dangay gis boo suuree. force day daw. acca ñu jàll. waaw euh, kook boobu sëriñ bi. njariñam. xam nga garab jàpp naa ni. di hmm. di wax ki nga dalal tamit mooy kan. waaw sëñ Mara Niass laa dalal. Hmm. non loolu see yóbbaale sama ah, émission rek. parce que émission bi yaa ngi koy dagg te am na solo. Euh, dégg sëriñ bi. waaw xam nga kook hmm, mi ngi wax solo nag. bë bëri na ñoo xam ne tey. xamuñu ko danga nga wax wax bu am solo. garab bu ci nekk ak na ko war a sangoo. tey lu mel ni kook am na fu mu baax lool am na garab yoo xam dèjà su jàpp naa ne loxo du ko laal. day sungu waa léegi lan moo tax nit ñi léegi mënatuñoo ràññee loolu lu waral loolu sëriñ bi ci ci ci ci ñiy wax la. wa ilaa da nga gis nii mm-hmm. ñi war a wax. Mm-hmm. waxuñu. Mm-hmm. jàng ñi war a jàngale cosaan jàngalewuñu wala loo ci xalaat yow. waa sëñ bi yow gis nga fii ci Sénégal. téere boo xam ne dañ na fajum cosaan la. boo demee bitugu Tektal TV fekk ko fa. dëgg la sëñ Cheikh am nga téere boobu. sëñ bi yooyu dañ ko war a pratiquer. fi ne sëñ Ablaye Diop xaas fi mu ne liggéey bi kenn ku nekk xam ne ne damay ci yow laay jël exemple wuy see na ko ci côté bu ne sëñ Ablaye fi mu ne li nga xam ne mooy philosophe am bu bëggee dimbale réew mi taxaw daan ne dama leen a bëgg a jàppale alors que nag war naa bind téere boo xam ne ëllëg lii ngay laajte nii lu ñuy seet la te ku ko jàngul mën naa jafe ku ne nag yor nga say kàggu dajale daan ne li faj lii koog gi nii nga koy defee déedéet loolu baax na am na solo mais nag téere sëñ Ablaye Diop Khass dafay war a nekk téere Mara waaw xaaral ma ñëw téere Serigne Mara Niass daf fee war a nekk waaye na kook ci boppam waaw sëñ Moustapha Youm sëñ Bassirou sama Saloum Saloum dégg nga sëñ bi uh-huh. ba tey ñu ngi ci mbokk yi ñu ngi ci biir euh, émission seen cosaan fii ci Tektal TV uh-huh. sëriñ bi ba ci cosaan waaw buñ ci duggee ba ci biir uh-huh. dañuy dugg ci wàllu rab léegi ci biir cosaan xam nga rab yi yëmuñu dëgg la léegi lan moo tax nit ki bëgg a jël benn garab bii ni dafay faj rab bi waaw loolu dafa jaaru kon ñu delluwaat cosaan xam nga mag ñi. waaw daan nañ jël. Mhm. njàkk. waaw ci biir njàkk bi dañ ñu tuura nga fa. Mhm. waaw sëriñ bi léegi kii. Mhm. tuur jàpp ko. tuur bii ñëw ëpp doole bii bii nu mu mën a faje bii. Ah, sëñ bi nag sa laaj bi am na solo trop. xam nga lan moo tax ma xam ne yëf yi am na sew sew. <laughs> fi ne àdduna nit ku nekk da am rabu cosaan. nit ku nekk da am rabu cosaan. sa d'origine boo ko toppee mhm. sa maam mhm. danañ la yabal ci ay xàmbu mais ndaw ñu fi mu ne koo ne ay xàmbu dañ naan yii damaa bañ ay rab di ma topp te xam xanaa xamoo ne boo delluwul foofa mhm. ca la ca rab yi di toppe fi mu ne njàq yooyu ngay expliquer ci rab fi ne tey sëñ Ablaye mën naa yor sunguf boo xam ne waaye nag ba tey xam nga li tax ma ne sew-sew am na fi mu ne sëñ Ablaye mën naa yor sunguf boo xam ne day faj rab day faj bopp buy metti day faj biir buy metti ñaan dafa garaaw nag ñaan neexut a tënk mhm. sëñ Ablaye mën naa yor sunguf boo xam ne képp kuy ñëw di daanu buñ la ci sangoo nga nelaw mhm. li nekkoon ci yow dañ mhm. yow nga naan sëñ Ablaye sunguf bii muy jëfandikoo lan la fekk moom li muy ñaane nag leneen la damaa toog ci ñaari mag kenn ki na ma bindal ma bind faatiya noonu laa koy jëlee exemple xam ngeen xisa bi ma bind faatiya teg ci taal bi mu tàkk moom mu bind teg tàkkul te lépp faatiya la mais ñaan dafa lu nekk ci suuf waaye ci nii ma gis ñu koy fajee nga baal ma dafa xaw a naqaree faj ndax nit ki boo xamul cosaanam première doo ko mën a faj deuxième mooy rab bi nga jóg di ko attaqué war nga koo xam yow mi koy song ndax dafa am danger ci yow dafa am danger ci sa njaboot dafa am danger ba ci ñi ngay nekkal kon li ngay song yow première war nga koo xam mm. waaye am na njaq yoo xam ne képp ku ci tuuru mm. moo xam rab bu mën a doon ci mm. àdduna xam nga est-ce que xam nga ne xawdul iraaful bayti wata jallabul xawdu xam nga ko damaa toog ak sama góor goo xam ne mi ngi Côte d'Ivoire mm-hmm. danaa sàcc wax la ko mm-hmm. dama toog mu ne ma xawdu ma ne ko ci lan mm-hmm. mu ne ma am na rab boo xam ne diggante Côte d'Ivoire ak Sénégal lay baagante wa rabul kaaba mu ne ma mu ne ma mu ne ma waaye ci ni muy ñëwee ci ngelaw lay doon na ma nag fi mu ne Sénégal del xool dëkk yi ma lay siteel Sénégal ak Côte d'Ivoire danañ bëri luñ nuroo ba ci fajin waaye boo demee ba ci biir mm. kii mooy lëbëj a carte gi bu demee fee lëjal tey mu ñëw fii lijjanti demaat fee lëjal tey mu ñëw ma ne ko loolu luy solution bi mm. mu ne ma ay kilifa yu mat kilifa mm. te xam rab mm-hmm. waaye fi mu ne koo dégg ma nga dajale ñetti kook dajale ñetti mbattu ñëw naan ñëw te ña gis naa ñuy faja rab te dañoo ami rab waaw xam nga xam nga problème baa ngi noonu première ki war a ñaan lu ba noppi toog di ñaan waaw loolu loolu mës naa ko wax jamono <laughs> ji xam nga xam nga da xool da ngay xool uh-huh. nit ki di faj rab mhm. kooku daanu moom mu daanu ah. wala kooku ngiy fecc moom mu ngi fecc kon xam nga ni kooku nekkatu fa bu kii reewee mu ree mhm. bu kii yuuxoo mu yuuxu mm. kon am na sabab bu sabab bu ca nekk te da wax wax bu am solo mhm. ci wàllu ci wàllu rab xam nga rab da bala nga koy faj dañu ñaari bar nga koo xam ni mu duggee ak fi muy génne tey man su ma duggee ci néeg bii. ñu mhm. tëj bunt bii. ma bëgg a génnee fii. dinaa doj mbir ba sonn waaye du ma génn mukk. kon da ngay xam bunt bii la duggee. Mhm. bunt bii la war a génnee. <laughs> waaye léegi nag loolu pour nga xam ko. Mhm. xeetu rab yu bari na yaa ko wax. yu bari te bokkul nag. te Sénégal dañuy faral di jaawale lenn sëriñ bi. mooy da ngay wax te wax nga ko sànq ci sa biir wax moo tax émission bi émission bu am solo la sama émission la nag ma lancé ko kon ne di wax waaw ndax dina jàppale waaw ba ci ba ci waaw loolu après maag yow ba ci ba ci ba ci sunu sunu jigéen ñi pour ñu baaxe wàllee leen ci ñu gën ci bàyyi xel da ngay gis koo xam ne dañu la dafay judd rek bopp bi métti si dafay judd rek gi laajatu mais question yi booy boom bàyyi la ko ndax émission bi dana dana ah man maay man lañ dalal di. lu sabab loolu sang bi kilifa gi ki kilifa gi yow fi mu ne lim lim may laaj moo ma ko gën a xam. lim may laaj moo ko gën a xam ndax lépp lu ma wax moo ma ko jàngal. waaw waaye nag dama may ma wax waaw bopp nag dafa am lu ci am solo lu ci am bopp rab da koy def fi mu ne bëri waa na tamit jigéen ju war a toll ci sëy te sëyoo doo tàggook bopp buy metti jigéen ju war a toll ci sëy te sëyoo amoo boroom kër doo tàggoog boobu buy metti ñi ci ëpp nag waaye rab ni muy duggee ci jigéen ngir nga yëg ne lii rab la bu naaj bi tàngee jër booy dox dangay mel ni sa bët yi day fulu loolu rab da koy def rab xam nga lu mu gën a ragal naaj bu tàng naaj rab da ko waaw rab day séendalu rek ci keppaar yi wala guddi lëndëm waa Tamba gis ah yow Tamba lay jóge ñaankat yi ñaan fii diw Tamba la jóge di ñaanlu si bariwul de tàngoor waa tax dëgg la. am solo pour suñu jigéen ñi <laughs> ñu bàyyi ci xel. Uh-huh, surtout parce que bopp. bopp li mu leen ci wax moo ci nekk seex. Euh, uh-huh. rab dana ko def jigéen mu toll ci sëyit sëyul dana ko def. Uh-huh. ngelaw it dana ko def. ngelaw rab la. waaw parce que xam nga ngelaw bu ñëw dugg nit. wax waxal boo ko sa bopp. toog fa mu toog. waaw léegi loo ngelaw la bu demee bay wax xam nga ni kon am na lu ca tax. waaw loolu rab la. te loolu nit ki fi yàqamul fi rab bi nekk ci bopp bi wala fi mu nekk ci jëmm ji du ko mën a génne mm-hmm. nit ki li nga wax rek mbir boo xamul fi mu duggee doo xam fi muy génne te rab fi mu ne wala ngelaw mën naa dugg nit ba noppi di dox ci yaramu nit ki mm-hmm. tey mu ñëw ci tànk yi suba mu ñëw ci bopp bi mm-hmm. fi mu ne mënoo fi yëg xamoo nit ki fi yëf yu toll mënoo koo ñaanal mënu koo faj fi mu ne bëri waa na ñu naan rab ak ngelaw lu xaw a naqaree séparé la nag léeg-léeg nit ngelaw da koy dugg nga ñëw ñu ne lii te xanaa xamoo rab ak ngelaw bokkul de xam nga ngelawu saytaane boo gisee mag ñi daan dox ba tey ñu ngi ci cosaan heure mel ni ñu ne la njolloor moytu ko ah mhm. ngam ñëwaat ba agsi ñu ne la moytul doxum timis mhm. mais ci ay heure la waaw booy def nangam yo bu dee timis ngay génn yoral këriñ man ngaa dajanteeg ngelaw heure boobu seytaane mooy dox nga baal ma du doon rab seytaane lay doon bu fekkee daf laa def ngelaw nag dugg ci yow nga dem ci nit mun na la yow da am rab sëñ bi kooku garabu rab rek lay faj te xamul ne yow sayaatin moo nekk ci yow ndax seytaane dafa am ay heure te day dugg ci nit ñi day fël oto yi xam nga loolu am na ñu koy tàqaleeg am na ñoo xam ne nga baal ma yëf yi dafa nuru dafa bëri sew-sew nag yàlla dafa bëri ay mbindaafon yoo xam ne lu ci nekk day lor doomu aadama waaye rab lu existe la pour nga pour ci ñiy seetaan. non lu am la. wax bu am solo la waxati. Mm-hmm. xam nga bu ci waxee loo ci kii rek dafa ciy dëggal bu am solo. Mm-hmm. ci ci ci wàllu ngelaw boobu mu wax. Mm-hmm. xam nga boo diggee ñuy tere digg njool loo. jinne dafa am waxtu xam fooram la moom it. waxtu woo xam ni. da dégg ñu ni doon na calambeer. fu mu romb bàyyi fa dara. waa léegi nag lu tax benn jinne boobu ngelaw li man a cof ki cof ki cof ki foofu la mbir ma. mooy waxtu woowu mooy doole ja kon yaa ngi lancé message mhm. pour ñii seetaan mhm. xam ni tisbaar mhm. timis dafa am borom am borom jërëjëf ba ci guddi nag it danaa ci dugg waaw guddi gi am na heure yoo xam ne daa nga dégg mag ñu ñu ne guddi dafa am borom te fi ne léegi ndaw ñi dañuy dañuy sollu gàtt di wër dëkk bi ba fajar léeg nga jaxas nga dajoo koo xam ne du nit sax nga nuyu ko yàlla na ma yàlla baa léeg-léeg nga àgg ci joxanteeg moom numéro fekk numéro bi jinne nga yor dëkk waaw waaw ñu baree ngi nekk ak nit ay at duñ xam ne jinne lañu duñ summi seen dàll yi ñu bëri. <laughs> waaw waaw waaw ñu bari duñ summi seen dëgg la man nit woo na ma na ma na ma na ma na ma na ma yoroon naa jabari jinne te yeex naa xam ne nit la yeex naa xam ne jinne la waaw moo tax jël numéro yi ci mbedd mi wóorut nañ ko moytu day so ah day sone day ñëw te bu ñëwee lépp lu war ci yow mën na koo def waaye nag saa su ne booy xool boo amee seetlu dara. xaaj bi ay jinne lañ. mu doon bu ñu xëyee boobu mais mais dalaa wax ci lu euh, am mm-hmm. mm-hmm. bi bu ko neexee jox ko ah. leneen la. leneen la kon ñu jàll. Mm. jërëjëf. Euh, léegi sëñ Mara. Mm-hmm. ku bëgg a mucc ci ci ci wàllu wàllu wu mel noonu. ñu baaxe ko mbokk yi ñuy seetaan ndax émission bi am njëriñ. jërëjëf lay wax. waaw jërëjëf émission bi kon danaa ko tënk ci mucc ak mos. Ah, mos kay. mucc ak mos la. léegi ngir ñu mucc li ëpp solo mooy àdduna képp ku la raw ñaan la rawe léeg nga gis ku am fayday liggéey million waaye amul ful laay def ci borom boppam téeméeri junni am nga fayday liggéey un million amal fayday def sa bopp téeméeri junni te xam ne boo ko ci defee boo doxalee tuuti di nga liggéeyaat beneen fukki million waaye nit ñi mën nañoo fexe ba am waaye nañ mën a fexe ba am seen am am ba da leen di rëccaat ñàkk fegu lay doon mooy euh, man ngaa fexe ba ba ba li lay yàqal saa su ne bu ñëwee day gàllankooru tey fi mu ne am na yoo xam ne boo koy jëfandikoo wala nga koy def rab du la yàqal mukk moo tax nit ñi dama leen di wax ne bu leen di jekk lépp di dox ngeen bañ a ñaanlu léeg-léeg nga gis rek heure boo xëyee yëf yu dox nga fàttee def ci sa bopp sëñ Fallou daana wax naan diw moo dégg dafa am lu muy diwoo te nit ki war ngaa ñàkk sa bopp ba boo demee ci sëriñ sax bu lay seetal du la gaaw a gis loolu day am nit ki am na ñoo xam ne am nañ kaaraange kaaraange goo xam ne ab sëriñ boo demee ci moom ne ko seetal ma boo coupé da nga ne da nga xam ne sax kii bul xalab sëriñ ba de yenn yi kaaraange da koy def aha ah. léeg-léeg nit di liggéey nit di ko war mënu koo gis loolu day am am na ñoo xam ne dañ leen koo ñulugal ci seeni maam lépp kaaraange la bañ a yàqule la maa ngi ci ba tey yaa maa ngi ci question bi bañ a yàqule dafa yaatu am na ndaw ñoo xam ne fi mu ne mën nañoo sonn ci seen bopp moo tax nañ joxante cër bu baax sëñ bi mën nga am gàllaaj lool romb lu ndaw nga def ko lu ndaw mu ne ah say sa mbir yàqu boo demee ci sëñ Ablaay sëñ Ablaay dana def lépp lim man fekk la nga def sëñ laay faj na soxla soo xam ne miilam la sa problème yaa ko teg sa bopp ñu bëree ngi tëdd tawat te ñoom ñoo war a faj seen bopp ñu bëri ñu waaw li lay gàllankoor chaque jour booy xool yaa koy def moo tax nañ raxasal xol yi ñu yéenante jàmm kaaraange gi njëkk mooy sëñ Fallou dane boo yéenee ñëpp jàmm bu ko ñëpp amul sax yow di ko am moo tax borom xol bi sell yàlla yonente bi lu mu ko taggee wa innaka la ala xuluqil asimin moo tax nañ fexee raxasaat xol yi beneen bi ci des mooy kaaraange dañ koy liggéey ci ay xeer kilifa gii xam na li may wax fan yee daf senegal moo tax dinañ yeexa daf maa woo na ma jëlal big na ma xaynul xamar xadiidul siinu kilifa gi mi ngi bind maa ngi sàcc wax ko ñëpp nag mi ngi defub liifur nangu waaw mi ngi bind na génn nag na liifur bi génn. kon sëñ maara te liifur bi nag bu génnee. nañ ko jëndee lu seer. kon sëñ Mara ñu ngi ci biir émission ba tey. Mm. macha allah Cheikh uh-huh. mm-hmm. émission bi. Mm-hmm. li ngi ci amal important mooy. nit dina ko seetaan jàngee ci. jàngee ci mm-hmm. ndax sëñ Mara wax na ci wax yu am solo. te ku ci bëgg a mucc di nga ko def. te da ngaa wax wax ba am solo ci nit kuy tooy. Hmm. ndax sëñ Abdou Junior day wax ni. nit bu liggéey ba am ñetti téeméer. Hmm. na jël benn téeméer ba jox yaayam. Hmm. jël benn ba def ci poosam. Oh. la ca des bu jox ko sëriñ. dégg nga wax bi wallaay parce que lii gàllankoor nit ñi mu ngi fi du fi jug. sànq ñu ngi wax ci yow. bis bu ne mu xam nga cat damay faral di wax nii. ku naan la ñaanal ma ci cat. ne nañ ñaan lu lu lu wadd rek bañ a taxaw waaye nit kuñ jul catu yàlla nañ ci yàlla musal mooy ki nga xam ne kenn tudd bu romboon fii kenn du ko xool kon cat nit mucc ci tooy rek ko koy waral kon nag macha allah ci émission bi mooy numéro un sëñ Mara looy tëjee li may question bu muy yóbbante de sëriñ si da ngay seen ñuy yor ay garab yi dem bitim réew mhm. léeg-léeg sëriñ bi mhm. jox nit ki jox CP bi mhm. léeg-léeg nen garab yàqu ci yoon wi mhm. rab bi da koy yàq léegi sëriñ sëriñ si waaw leneen am garab yu yàqu ci waaw loolu day am am na garab yoo xam ne sax euh, man nag <laughs> gis nga <laughs> gis nga <laughs> gis nga gis nga gis nga garab yi dëgg la nag léeg-léeg da nga jël sunguf am na loo xam ne accident la nag léeg-léeg da defaral nit kaskeel ko ko ba mu dëgër bu demee GP bi dana ko dajji téeméeri yoon dana ko lëj mbëj garab nag bu fekkee yaa ngi koy jox nit te mënoo koo ñag ba du yàqu jërul nga ko koy jox loolu dafa bokk ci liggéey bi liggéey bi dafa am lu koy gunge waaye doo jël say sunguf rek casque dem na dem na dem déedéet da koy ñag ba bu demee bu ko laalee gis ci boppam réew mi nag dañoo naqaree ñaanal tuuti dañoo yàkkamti léeg-léeg nga ñëw ne yi sunguf bi ma ko laalee un mois nit xanaa xamoo ñaan di nga topp garab di ko jëfandikoo dix ans mu rafetlekte sa yaram sa àdduna baax di nga laal garab un an di nga laal garab six mois di nga ko laal un mois wala six mois ndax dayo yu tollul te suñ borom lu mu def ci nit loolooy loolooy li gën te wax bu am solo la beneen bi ci waaw beneen bi ci des mooy garab yi ci sëriñ si moom léegi nag garab dafa jafe fi mu ne bëgguma wax sax man du ma yàq dara mais mais euh, garab dafa jafe waaw waaw sunguf sunguf yii ma gis nag léegi. li ci ëpp du sunguf. ak it sëñ bi comme li nga wax. du sunguf ci nit ñi seen yàkkamti. Mhm. ñu xam ni tey da nga ni kii danaa la sëriñ bi. Mhm. lii moo ma dal nga yónnee koy garab. waaw la dal boo xamee ni garabu maaraay ñas yi bu ñëwee lor ko. Mhm. day génn dem xaari ko fële. ne nit ñi di bàyyi xel loolu. booy sangu doo fekk dara. wallaay. diggante ba nga noppee. bu toogee tuuti. mu nis ñëw na jàllaat. na nit ñi di bàyyi xel loolu te xam ni. képp ku la jox teg damay wax ni. Mhm. rab ku koy faj. Mhm. du joxe garab nit rek. Mhm. waatal ni sëriñ ba borom bopp la boroom xam-xam la. bu ci fajee benn nit rek. waatal loolu. ndax li tax mooy ñoom ñàkkuñu fayda. nit jàkkaarloog moom. mu xam ni yow mii dara nekku fa nga koy faj. Ah. kon nañ delloo cër ji bàyyi ci xel te bañ a yàkkamti te xam ni ah. euh, yaram moom sànq mu ngi tilim dëkkal di sangu bu yàggee mu set loolu moom loolu moom mënta ñàkk ci moom xam nga lu tax sa euh, sa euh, euh, waykat bi da ko doon wax yàkkamti yàqule fi mu ne sénégalais amul problème réew mi nga baal ma sëñ seex nit ñu baax a fi dëkk nit ñu yiw a fi dëkk nit ñu bëgg baax a fi ne waaye lenn rek mooy suñ problème mooy yàkkamti te fii nag ku mat la dem mm-hmm. <laughs> moo tax léeg-léeg nit ki na ma yàlla na nga am lépp ci àdduna mën a ko bëgguma ko ku am lépp rek dee la dese nit ki da ngay fexe chaque jour ay soxla di nekk ci yow ngay góor góorlu di ko mën a saafara waaye bu fekkente ne kër yi oto yi soxna yi lépp mat na sëñ bi yow faatoo la dese moo tax soxla yi nag ak nit ñi jamono moo dem moo demee noonu moo tax nañu fexe bay seeti kilifa yi di defar suñu yaram yi réew mi moom képp kuy dox rek nit teg la bët am na bët yoo xam ne bët am na de bët bu aay sa émission bi waroon nañ cee boole bët. dina dem waroon nañ ci yëf yi daal des na. émission bi na ginnaaw mooy première bi te man. waa question yam yi damaa kii am na yu bëri yu ñu war a mën a développé. yaa ngi numéro uh-huh. man maa koy tourné ah waaw man de fi mu ne émission bi maa sant gërëm rek di gërëm waa parcelle yëpp uh, ak waa Touba waaye nag uh, can tey màggal gi dafa neex sëñ Cheikh waaw maa ngi ci jumaa Serigne Cheikh Saliou uh, ci kanamu jumaa ji rek. waaw di di nuyu waa waa waa kër ga ma dëkkal. ndaysaan dañ may dañ may nemmeeku. wallaahi eh, am na ci waa sëñ Ablaye nag mi ngi Malika. parcelle mi ngi ci kaas bi rek. ci kaas bi boo fa ñëwee moom boo laajtee doo réer jërul sax laajte boo gisee fa gën a fa gën a ba fa nit ñi bari torop torop rek. naa dina ne dama koy catu sax waaye amul solo fi nit ñi bari lool ci kaas bi moom mi ngi foofu bu fekkee Malika moom. Euh, adresse bi yomb na boo ñëwee ci station bi rek euh, danga dem ba këram ndeysaan di borom teraanga nag baaxoowuma sax di wax ci nit yàlla xam na ko dafa am barki démb ku ma woon na ma na ma ma na ma na géwalu xaas ma kontaan xam nga lu tax sëñ Cheikh lii dafa bokk ci gërëm yi du nit ku may gërëm sax ndax yëf yi des na tàmbaleegul euh, boo gisee ma ma ma mën a wax ci moom damaa gis ci moom la sëñ Mbàkke soxna loo waxoon dana nit dangay defar sa jëmm ba ku la gis bëgg la maanaam ku la gis bëgg la am na ñoo xam ne fi mu ne dañ koo bëgg te defalu leen dara waaye defaral sa jikko ba ko jaxasoo ak yow du la bëgg a baax waaw suñ xaas boo gisee fu mu nekk nit ñi di ko xeeñcu di bëgg a taqoog moom di ko jege bëri na ku dagg tikke ñëw ba yegsi ci moom ci kaas bi da nga koy gis rek mooy sa amour nga dem loolu nag ji koy sang la di gërëm diwaanu parcelle yëpp waa Touba di nuyu sama kilifa sama wayjur bu góor bi ak bu jigéen bi samay xarit lañ waaw moom waaw damay bañ gaa yi jël tur yi di ma ci def dara waaw xam nga gars yi dañoo doy waar sëñ Cheikh yow maa ngi lay sant borom Tektal TV ak équipe bi yëpp euh, maa ngi waaj ak yéen ñu dem Dubaay yàggatul incha allah waaye sëñ Cheikh ñi ngi lay beral sa cantuk bopp yow gis nañ ni nga jàppale Cheikh bi ndax euh, ku mën a rafetal nga te nit ku dëggu nga nag. boo gisee ñu bëree bëree bëree bëree du ñàkk ci sëb site wala du ñëw ci yow yàlla na ma yàlla baal ci wax ji dañoo dañoo dañoo dëgguwul waaw yow koo ubbil rek ku jara ubbil la ndax da ngay faral di wax naan aajo yi nañ ko baw ak suñ borom te aajo moom suñ borom rekk moo ko jagoo waaye moo tax seen diggante yéen ñaar wallaahi lu ma rafetlu la te lu képp ku bëgg lu baax man nag waxuma ak ñi bëgg lu bon man ñi bëgg lu baax rek laay waxal ku bëgg lu baax rafetlu na seen ànd nit koo xam ne yaa ngi koy jàppale te yàlla rek tax yombul ci jamono jii te moom sëñ Ablaye loolu nga ko jàppee yow ak sa équipe sëñ fàllu Seck mënuma koo ñàkk bañ sant moom sama buntu la ci kër gi moom jàngkatu xasida la di bi waaw day dégg sëñ Fallou sëñ sëñ Fallou Seck moom sëñ Ablaye Diop xaas nit ñi léeg-léeg dañ lay tere nit te fuñ xam ne nit kaa ngi fa ñoo fay njëkk Sénégal xamatuma gan senegal la waaw dañ naan la bawal diw sëñ alfa ah sëñ Cheikh yaa am kóllëre waaw Muniru ndeysaan ñooñu samay gaay leen maam Thierno waa Daara ja ji bi mbër Diop eh, dam da dañoo xuloo waaye dina juboo mbër ku baax euh, di di di sant ñëpp ba ci ba ci soxna su baax si nga xam ne moo def léegi soxna mboose waaw ànd ak sama géwalu juddu bi nga xam ne dara amul asaar euh, ak seex yàlla yi euh, jàppale nañ cheikh bi ak cheikh Moustapha dañoo jàppale cheikh bi tey dafa am ku gis image na ma seen image yi Daaru Salaam yi rafet na dañoo jëmmal sëñ bi ñëpp bëggoon a gunge cheikh bi mais ñi ko gunge ñooy réew mi nag waaw cheikh bi ñëpp a ñëw waa Touba Daaru Salaam tey kër guñ ci dugg doo bëgguñu dem ñoom Prince mbàkke jar nañoo sant ñoom it jàppale nañ cheikh bi te ay nit ñu yiiw lañ te bëgg lu baax mënumaa mënumaa mënumaa fàtte euh, euh, jaw jaw moom it jar naa sant si sinab bi ndax it ku ne xam na ni muy taxawoo cheikh bi waaw maa ngi nuyu madam Diop di ko wax na ko incha allahu rabbi yor naa yor naa yóbbante boo xam ne war na nañoo gisee ma am lu ma ko wax te loolu dafa yàkkamti